a lan mooy xew le 22 ci kaay seetaan TV. rek waaw lan mooy xew le 22. le 22. cey le 22. cey le 22. cey le 22. ah cey lan mooy xew le 22 ah, eh, mai ci kaay seetaan TV. leeral leen nit ñi lan mooy xew le 22. xew-xew bu mag te rëy. loolu kañ la le 22. ndaw lu rëy naa le 22 narul yomb de. ah man nickel de xaw lan lay doon waaye à suivre lay doon. lan moo war a xew. tey le 22 ak Kaay Seetaan TV man waa ju nii lay def. ah bientôt. sur Seetaan TV. oh ko foget le am na luy xew ci wala Kaay Seetaan TV. bu ma la ko nettali never forget I'm out. et c'est pas fini. cëy le 22 le 22 rek mel ni saraxu banaana ndaw tarxiis le xaar leen ko sur la chaîne Kaay Seetaan TV ko kenn rate ku ko rate rek ëpp na. et c'est pas fini. mbokk yi laa de piis laa de bëggee eh boo leen bëggee xew kaay leen fi le 22 ñëpp bokk yem incha allah ci Kaay Seetaan TV di ngeen ko gis wala boo.